leen ak jàmm am site internet euh, net bi TV li gën a fës ci bopp xabar yi nag euh, dañu koy door rek kat yu nga xamante ne kii di Fadilou Keita daal dina koy yëkkati rek ginnaaw bu ñu ko libéré ca ndungu siin nga nga xamante ne rek nekkoon na fa moom nag euh, moo doonoon ganu kii di Maimouna Ndour Faye foofa ca 7TV moom nag la mu daal di yëkkati comme kàddu moom Fadilou Keita ci boobule occasion nekkoon nag membre ci parti bi ñu di Pastef daal dina yàq rek kii di Barthélémy Diaz ak Khalifa Sall mi nga xamante ne rek dañoo jàpp ne Sonko di kaddu kii di Fadilou Keita moom nag nee na yàgg naa dankaaf bu baax kii di Ousmane Sonko que ne nag bu musa am confiance ci ñoom ñaar ñooñu lee nee na nag laata élection locale yi moom nekkoon na koo xamante ne rek di nay toog ak Ousmane Sonko nag ca boobulee bés da koo daal di xam ne rek ne ko mairie Dakar bi nag bu ko jox kii di Barthélemy Diaz ndax day yàgg rek waaye dinañu musa wor mbir munu mel nag la kii di Fadilou Keita dal di wax ba Barthélemy Diaz da koy daal di trahir dina trahir kii di Ousmane Sonko ndax nag ay kàddoom nekkul woon lu stable maanaam daal euh, taxul ko woon euh, sincère lool ndax nag xam na ne boobulee euh, budget nekkoon na mbir mu important kon nag waruñ koon mettre en jeu moom nag moom Fadilou Keita la mu daal di xam ne rek mooy laata élection locale yi ci la ci la ko daal di xamal kii di Ousmane Sonko mu nekkoon nag ay témoins yoo xamante ne rek fekkee woon nañ boobulee mbir ginnaaw bu nu mu bàyyi xel opposition bi ndax jamono jii daal li leen yitteel dëgg rek mooy ànd bi ci diggante Barthélemy Dias ba tey rek kii di Fadilou Keita la mu daal di xam ne rek moo di ne nag jamono ji preuve yi daal dinay wane lépp ndax li nga xamante ne rek moom mooy honnêteté ak fraternité envers nit yi nga xamante ne rek yaakaaroon na leen jamono ji daal dinañ koy wor ne nag politique am na ñoo xamante ne rek dañuy def erreur te seen erreur dina leen topp waaye kii di Ousmane Sonko moom ci jëmi boppam rek dafa dal di joxe li nga xamante ne moom mooy confiance am te nag uh, ba mu demee ba ca njeexital ga rek dañu ko dal di war di kaddu kii di Fadilou Keita ba tey rek Fadilou Keita nag uh, la mu daal di xam ne rek daal di ne accusé kii di meex bu Ndakaaru que ne nag dafa modifier list député yi nga xamante ne rek uh, ñoom la ñu arrêté woon laata ñu koy joxe mu ne nag ci élection locale yi liste yeewu askan wi nga xamante ne rek ñoom ñoo ko joxoon Barthélémy Dias pour destination conseil municipaux yi nag dañ koo daal di rek coppar ñi ba tey Fadilou Keita nee na nag ma ngay wax list bi nga xamante ne rek moom la ñu daal di valider euh, yeewi askan wi ba noppi daal di koy jox kii di Barthélémy Dias moom da koo daal di woon euh, changé euh, ba noppi rek remplacer beneen ay liste boppam mbir mu nu mel nag nee na responsable Mermoz Sacré-Cœur moom moo ko daal di xamal ginnaaw situation bi nga xamante ne ci la Ousmane Sonko nekk da leen na daal di waxoon nag ñu bàyyi lépp rek ci suuf waaye ñoom ci seen jëm bopp daal gis nañ ne rek situation bu nu mel yàgg nañu ko dund ba tey rek kii di Fadilou kayita la mu daal di xam ne rek mooy dina nag jamono ji dafa mel ni rek jëf ju bon ji moom mooy mujjee nekk lu baax ndax nag ñëpp rek yaakaar nañ ne erreur politique la associé ku mel ni Barthélemy Diaz ak xalifa Sall ñi nga xamante ne rek jamono ji dellu ginnaaw rek la ñu daal di gis waaye nag mbir munu nu mel tax na ba Sénégalais yi xam bu baax ñan ñoo sincère ak ñan ñoo sincèrewul ci jëm Ousmane Sonko waaye nag ñoom ci seen jëmmi bopp daal dañaa préféré woon wor kii deuxième yeewee askan wi di kaddu kii di Fadilou Keita jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen info